jataayu tey bii dafa am lu muy lu muy lu muy tekki parce que daana nekk Assane kese di toogal boppam wala Karim kese wala xam nga grand yi fi toog Clédor daam ku ci nekk di toogal sa bopp di wax mais tey dafa am lu dal ci kaw Sénégal loo xamante ni dal na suñu kaw ñun ñi ñëpp ñu seetaan ko xam nga dal na ci kaw xalifa Sall dal ci kaw Karim Wade ñu seetaan ko mu war a dal ci koo xamante ni bugguma tey sénégalais yi di ñu wax Pastef nañu wax Ousmane Sonko doomu senegal comme man comme ñun ñu fi toog ñëpp journaliste yëpp man loolu moo tax ma teew fi mu bëgg jeunesse bu Sénégal nañu xam ne caaxaan jeex na nañu xam ne fecc jeex na nañu xam ne tàllal loxo jeex na xare moo fi des xare te nit bu fekkee ne yow da nga nekk ci réew réew moomu nga di ko ndamoo wala nga bëgg fa dara wala nga bëgg fa def dara da ngay fexe réew boobu am indépendance ba pare parce que bu amul indépendance yow doo am li nga bëgg parce que lépp loo mën ti am tamit xam nga mën na xëy xam nga tàkk ci loxo buur te fi mu toll nii ñun buur la ñuy jëflanteel umpalewu leen ne man xam nga États-Unis laa nekkoon di séen lu bari xam nga di jooy parce que bi may yëkkati sama kàddu xam nga di di di di di di wax wax bu teggenewul damaa gis ñoo xamante ni amuñu teggin ci ñun. Mm-hmm. bu ma fekkoon Abdou Diouf wala sengoor wala Papa Ablaye wàdd sama baat du mel noonu mais dañ fi fekk koo xamante ni bi mu ñëwee rek daf ne kilifa diine yëpp xam nga ay citoyen ordinaire lañ. xam nga daal ne opposition bi duñu dara dinaa fexe ba fay leen ñoom ñëpp. Mm-hmm. xam nga te loolu mooy liggéeyam ma bëgg nag. xam nga liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy liggéey fépp fu jeune nekk ci Sénégal soit yaa ngi dawal Jakarta soit yaa ngi dawal Super soit yaa ngi dawal Sotrac wala yaa ngi dawal car rapide lu mu mënti doon wala nga yor bitig xolal heure tëj ak taxaw dafa jot parce que bu ko deful léegi nii xam nga bu koy def dina fekk mu trop tard xam nga moo tax ñu war a taxaw léegi pour Sénégal taxaw pour suñu frère Ousmane Sonko taxaw pour suñu deret sax laay wax xam nga man pare naa pour joxe sama bakkan parce que li tax ma pare pour joxe sama bakkan bërki démboo njaay ci kaso bi laa nekkoon te liñ ma waxal yëpp dara nekku ci xam nga jaar na ci Karim jaar na ci Clédor jaar na ci ñu bari fii biir Sénégal bu ñu bàyyee nag yu mel noonu di continuer mooy xoolal ci suñu kaw la jëm si te balaa ñoo egg fii ñu jëm xamoon nga ñun nañu jóg gàttandu li nga xamante ni moo war a dox jëm ci ñun parce que bu bis bu egsee suñu kaw dina metti trop amul journaliste amul kenn kuy taxawaalu biir Sénégal koo xamante ni yow doo mën mën nga taxaw ne man duma ma sénégalais xam nga léegi loolu moo waral xeex bii ñuy xeex nii sama gars yi bu leen seetaan bu leen seetaan commencé ko ci yéen ñi nekk ci salle bi xam nga lépp luy information génne leen ko lépp luy information wëri leen ko fi Adji Sarr dëkk ñun ñëpp xam nañ ko yee heure bii waroon na fekk ay caméra ñu jël ay information fépp foo xamante ni fa la Adji Sarr dëkk parce que Ousmane Sonko sénégalais yëpp xam nañ ko ba pare te ñu xëy ñu tegal ñu benn manipulation boo xamante ni ñun ñëpp dañuy toog rek ku nekk toog ci sa Facebook wala nga toog xam nga sa ruq naan non lii mën na nekk non passé nañu ay commentaire ci xare la ñu nekk nañu jóg ñun ñëpp pour xare xam nga Macky Sall moomul Sénégal xam nga te man li nga xamante ni moom laa mën a séq ak moom mooy xare man mënuma ko may dara barke yonent bi xam nga dinaa am nag loo xamante ni toujours dinaa ko may sénégalais yi comme ni ma leen ko waxee parce que jàmbat bi dégg naa ko Assane waxal li ngay wax mais bul saaga mais ñii ñuy jëflanteel ku leen saagawul tamit di nga wuti yet mbaa nga wuti jaasi. xam nga te balaa ñoo egg foofu kon xam nga li yonent yàlla Muhammad mu waxal lépp loo xamante ni mën nga ko faj ak sa làmmiñ ak noo ko mën a faje faj ko balaa ngay jëli ngàndaañ xam nga man foofu laa tolloon parce que xam nga saaga yàkkamtee xeex la te man damaa yàkkamtee xeex Macky sàll jàkkaarlook moom rek laa bëgg barki seen Touba te dafa jot. xam nga kon préparer leen ko xam ne ñun ñooy Sénégal xam nga bu ñu bàyyi dara bu ñu bàyyi dara léegi nag bu demee ci côté police yéen administration bu Sénégal benn seen salaire yi Macky sàll nekk fi day continuer Macky Sall ñàkk fi nekk day continuer. xam nga bàyyi leen loolu xel seen éducation yi ngeen topp ba egsi fii ngeen egsi ak waat yi ngeen waat bàyyi leen ko xel bàyyi ne ku ci nekk am nga njaboot te booy xëy di dem di doxi ci santaane Macky Sall xam nga bàyyi sa njaboot ginnaaw te sénégalais yi xam nañu la nañu bàyyi loolu xel te fi mu toll nii àdduna bi xolal lépp a xarañ lépp a xarañ xale bu ndaw bi doog a judd sax yàlla jox na ko xarañte boo xamante ni joxu ko ñu dugg ci juddu ci année quatre-vingt-dix-neuf yi xam nga xeex baa ngi noonu xam nga man bàyyiwuma dara man moom du ma bàyyi dara xam nga parce que ki ñuy jàkkaar lool mayuñu dara respecté wuñu respecté wul suñuy kilifa respecté wul kenn ku yeewoo Sénégal kon nañ leen taxaw xam nga ànd xare xam nga wasalaam loolu moo doon waxtaan bi dégg na ah? jaa ngeen jëf clair mais man je pense que daanaka boo xoolee wax nañ lépp Clédor ak Grand Dame ak euh, ak Mansour Mboub wax nañ lépp li am solo rek lenn la am mooy man man li ma wax li ma doon wax rek démb ak bërki démb waxu professeur Cheikh Omar Diagne bi laay waxaat rek ne Sénégal bu fekkee am na violeur benn violeur moo fi am bu leer muy violé ñëpp gis ko muy violé Macky Sall la parce que violé na constitution yi violé loi yi violé na lépp benn violeur boobu laa fi gis man mu leer ma ne kii moom ñeme naa waat ni violeur la jug jot na parce que man dama ko yàgg a wax man bi may wax jug leen du tey léegi nag di am solo ba Sénégalais yi xam ko mooy ndax Sénégalais yi dañu war a seetaan Macky Sall bu war nekk mel ni buur quoi comme ni ko grand dame di waxee ndax dañu war a seetaan Macky Sall moom moo ñu moom ba lu ko neex lay def wala lu ko neex la bëgg a doxalee la police police ci boppam Aly Ngouille Ndiaye lu ñu ko mën a waxal Aly Ngouille Ndiaye lu ñu ko mën a waxal quoi qu'on puisse dire lu mu doy waar doy waar sax moo tane Félix Antoine Diop bi nga xam ne neenu baxal laa ko tuddee boobu boobu mel neenu baxal man mënu ma comprendre naka nga mën a jàppee police comme ça élément bip ak nu amee solo ci police nga xam ne ñoom ñooy maanaam lastraku nga xam ñooñu bu ñu jógee rek ay intervention yu am solo moo leen tax a jóg nga leen di wàcce ñu dem ci këru benn politicien ba lañ dóor ay briques ñuy daanu ñu leen kookali quoi maanaam woyee faayu police wane faayu gendarmerie lu tax parce que xam nañu ak gendarmerie dañu am fulla état yabul gendarmerie ku leen moo koy faj te jàmmaarloo moo jot Macky Sall nag duñ ko bàyyi man du ma ñooñ taxaw naan ay nañ bàyyi justice def Sénégal amul justice boo amul justice ñun ñooy poñe Sonko ne ko demal wuy ci nañu dara du ci dara du ko ci mais Sénégal amul justice fii ay voyous ñoo fi nekk état buy comploter ci kaw askanam sàcc pétrole sàcc gaz say doom di foye réew mi say frère di foye réew mi ñu yàq réew mi yëpp xam Aliou Dunguru Sow li mu def ñëpp gis nañ ko léegi nag dañu bëgg xam ndax Sénégal dafa am doomu koo xam mooy doomu Sénégal ak keneen ki di di koo xam ne moom mooy ku tekkiwul dara ki ndax ñun nañuy nangu loolu ñun la majorité de cette population là donc ñi ngi def appel di woo askanu Sénégal yëpp ne ñun dañu jug taxaw pour jàkkaarloog Macky Sall ne du laal Sonko en fait c'est ça le discours il faut pas ne fii di wiiri du laal Sonko wala su ko laalee moom bu tëddee du nelaw na xam ne laal na lu mu warul laal parce que Sonko du Karim Wade Sonko du Khalifa Sall Sonko du ko bëgg ñëw rek buraaye ko buraaye ko Macky Sall dafa ni na mag ñi xam ni Macky Sall dafa ni moom du am wujju day toog ci pouvoir ba mu neex ko mu jox ko ko neex mu toog képp ko opposé jàkkaarloog moom mu ne dina la yàqal dina la rey tey da ngay dee loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba ñuy woo tout la population sénégalaise rawatina la jeunesse sénégalaise ñu taxaw waxuma Casamance waxuma Tambacounda waxuma waxuma Louga waxuma euh, Thiès wax région ñëpp laa wax ñu jug taxaw jàkkaalook Macky Sall ne ko day arrêté te day dellu ginnaaw c'est que loolu la quoi day dellu ginnaaw te ñu démystifier ay kaso ki prison policiers yi sonn ñoo ñu gën a sonn gendarmerie ñoo ñu gën a sonn ñoom ñoo ñu gën a dee. donc ñun nañ démystifier ay kaso ak ay prison ndax Sénégal ndax xeex Macky Sall jaamu yàlla la.